Ah, waaw mais ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi bon di ko ñaanal yàlla rek du wax ni moom nit ku baax la quoi. Mhm. nit koo xamante ni ku xam boppam la. nit koo xamante ni kenn xamewu ko dara lu dul woon liggéey ak bëgg njabootam ak jàpp na njabootam doomam bu jigéen bi bu mu koy may man la ko nijaayal te man ak moom am na côté boo xam ne xaw nañ faa daje parce que mbokk la mais daal daba daal nit ku baax la nit ku bëgg boppam la ku bëgg liggéey la ku am personnalité comme li Cheikh wax ci biir li nga xam ne moom la yàlla boole woon ñu bokk ko muy jànqeen jaba nekk nekkul woon benn élément bu simple ci biir parce que dafa am lu mu fa lu mu fa téye woon waaw parce que boo xoolee da nga naan jigéen ñi ñoom ñëpp presque moo nekkoon seen yaay mm-hmm. bu benn détail amee wala dara sax mooy dajale femmes yi waxtaan ak ñoom mm-hmm. bu affaire bi déraillé mu tegal lépp ci kaw raay bi affaire yi avancé quoi. Mhm. amoon na benn rôle bu important ci biir affaire. Mhm. donc tey jii nii yàlla def na lu ko neex te bis la boo xam ne kenn ku nekk na ko xaar <laughs> ndax kenn ku ci nekk am nga sa wàll mu jege wala mu sori moo am. Mhm. mais daal actuellement li ñu ko deseel mooy di ko ñaanal yàlla. yàlla jéggal ko yërëm ko. te fa mu nekk nekk noflaay ci moom. Mhm. ci kàttanu yàlla bu ñu xoolee yéen da ngeen di partager lu bëri ay séquences kon tu es bien placé pour wax ci moom lan moo la gën a marqué ci ci Daba. non Daba moom Daba moom ñoo ñoo ñoo dundandoo daal. Mhm. ñoo ñoo dundandoo ñoo bokk lépp. Mhm. man li ma gënoon a intéressé ci moom te loolu moom day siin ñoo ko bokk mooy nit ku dëgg la nit ku dëgg la du wax si ginnaaw nit. su benn affaire amee wala dara ñu war ko wax publiquement lay taxaw wax li mu war a wax te loolu jafe ci jamono ji tool mm-hmm. mën nga nekk nit mu wax dara sa kanam loo xam ne gëmu ko du bokk ak li mu wax sa ginnaaw mm-hmm. mais moom du wax si ginnaaw mm-hmm. te loolu jikko boobu même laa gis si si ndey siin ko waaw loolu moom bëgg bi tamit ñu koy ah, moom loolu loolu loolu ñun lépp lu ñuy def ñun tàggat nañu loolu ci biir groupe bi nekk lépp lu ñuy def ba heure julli jotee soxlaatuñu loolu waaw lépp ñu nekk bu julli jotee soxlaatuñ loolu ban jox yàlla lim moom ba pare soog a nekkaat ci ci kii mhm. xam nga kon mun ñoo guddal daal dañuy gàttal mais daal na ko ñëpp ñaanal yàlla nu wax ni bu yàlla ñëwee ak mbiram da ngay rax inna lillahi wa inna ilayhi maa ngi nii man Cheikh Seck maa ngi ànd ak si ab Moussa Seck Serigne nga ñu ngi nii ñoomin Ndeye Sine Sall ak ñoomin ñoom ñëpp ñu nga fële macha allah mhm. waaw bisu tey bi rek bisu njàll la Eh, ndax Rokhaya dafa bokk ñi sas Diankhé bi may créer Diankhé production c'est la première à part Moussa Seck mii <laughs> nga xam ne sama doom la maak baayam ñu bokk ndey ak baay à part Moussa Seck c'est la deuxième personne à qui ci laa waxtaan ci lu jëm ci Diankhé production kon ça veut Daba Soumaré moom moo fondé tey nag bisu naqar la ndax dañoo amoon élément boo xamante ni waxuma sax en tant qu'artiste mais ndey la woon ci biir jànq yi ndax xale yi moo leen magoon ndey la woon taxaw nag taxawaayu ndey lu mu gis lu nar a yàq mu wax ca lu mu war a dox mu dox ko lu mu war a def mu def ko noonu lañ dundee pendant presque trente ans maanaam nekkuñu ay comédiens yu ànd mais ay ñu bokk ndey ak baay ñu ànd mais moom Daba Soumaré nag ndey la woon ci biir troupe bi ñëpp nag jox ko ciru ndey. moom boobu loolu nekkoon chance am man sax yabul nañ mais mais roqo yi kenn mosu ko yab tey nag bis bii day nekk bis boo xam ne dañ koy ñaan yàlla rek loolu lañ dese ndax euh, yàlla mooy ñëw ak mbiram dañ koy ñaan yàlla yàlla bàmbel mi noflaayam yàlla na ko yàlla jéggal li mu fi bàyyi yàlla na ko yàlla barkeel mhm. alhamdulilah ci biir feebar bi ana yan kàddu ngeen ngeen mujjee euh, ñëw nañ seet si ko waaw am na li mu ci gën a marqué bi ñu koy seet si boobu roqee feebar na mais li ma jaaxal bi nu ñëwee def délégation war a yendu si ci moom jour boobu roqee ci ci ma moo tax bu la nee nit nitee garabam keroog laa ko gëm roqee dafa wér waa këram ni roqee gëj naa añ tey añ na roqee gëj naa ree mais tey ree na ba ba ñu ne ci mbedd mi sax dañuy dégg baatam muy ree keroog li ma ci la doxe woon na jamono jooju bi mu fi ñëwee dox nag am son son évolution di gën a positif ba yàlla ñëw tey mais ñun sentir nañu ne moment boobu ba ni mu demee nii dafa wéroon tey loolu moo nit ñi tey garam suñu siyaat jërëjëf ñëpp di leen jaale li ñu bokk d'abord sunu sœur la voyage bi mujjee def Paris man maa ko invité Paris muy la Ramadan à Paris ñu ko daan def ay ñoom Diouf Fall Baye Ili demoon ci Euh, ak ku ñaan ba Diop Farimbe bi joué dina ma neex. Mhm. waaw man mii maa ko invité Paris. Mhm. mu ñëw fa def voyage def plus de une semaine. Mhm. def la Ramadan à Paris sama sœur la. Euh, booy seet sa théâtre yi ñu daan def man maa daan nekk jëkkëram lu bari te man na maa jur. waaw mu nekk nit ko baax. yàlla na yàlla yërëm ko yàlla yokk leeram. jërëjëf euh, tey bi mu bi génnee àdduna ana yan kàddu yu mujj yoo xam ne partagé ngeen ko yéen yoo xam ne bàyyil na la ko. waaw daba. moom ma téléphone war mat 15 jours. toog naa ba mu yàgg mu woo ma téléphone euh, xaw moo sax kan moo may woo fekkente numéro boobu dama changé téléphone. ma ne ko kan la mu na man la Daba Soumaré e woo ma damaa bëgg nga ñu àndaat dem Paris lii daal la ma mujjee wax dans 15 jours ma ne ko Daba dama am fu ma nekk naa la rappelé rappelé wu ma ko ba bërki démb ba jour jour bi mu gaañoo la sama xel di nekk ci Daba Soumaré ñu tàggee ma ko ci jour boobu mel ni dafa nekk loo xam ne daal collection lu yàlla dogal la mhm. asalaamaaleykum wa foo ma am binta binta ci kër ga buñ ko amee bu baax a baax ñu fekk la fi nga xam ne moo di mu nekk naqar boo xam ne ñu koy portage ak yéen tey ji boo doon témoin ci daba ana lan nga koy ngay témoin maa ngi leen di nuyu yéen di wax inna xam ne suñu borom joxoon nañu ko ci coobareem waaye jëlaat na ko ci coobareem waaye ci biir loolu dañuy ñëw. ànd ko ak waa xaar média ci ndigalu Modou xaar sunu kilifa bi ñu ñëwee doon jébbal sunu njaal di wax ni daal euh, xam naa ni damay indi ay témoignage rek ci soxna Daba Soumaré nit ku baax la woon nit ku gore la woon nit ku jullite la woon ku bëgg njabootam loolu bokk na ci liñ xam ci moom avant nga may laaj dara loolu laa boon indi pour témoignage ma bàyyi la nga laaj. Mm-hmm. Mm-hmm. bokk am na séquence yoo xam ne wala ay tournée yoo xam ne bokkoon ngeen ko ah, am na yan souvenir nga amoon ci moom yoo xam ne marqué na la mu def loo xam ne ça te tient au cœur. si euh, njëkk. Mhm. am na un jour man ak moom ñu ngi war a bokk benn séquence bu ñuy wax jabaru góor gi man maa ci nekkoon géwélam mais ci biir néeg bi ñu toog yëpp di préparer mi ngi may wax bëgg mbokkam gi nekkoon ci moom ni mu bëggee bëggoon mbokkam. nit nag bu loolu amee wax dëgg yàlla bu luy amee war naa ko seede ba ay mbokkam yëpp xam ni Daba Soumaré mi dem ku leen bëggoon la ku leen fonkoon la ku fonkoon askanam la ku fonkoon deretam la waaw loolu daal marqué na ma ci moom trop trop trop ñu gis ni tamit euh, bokkoon na benn instant gisoon nga ni euh, dafa faible parce que de plus en plus nga ko gis écran da ngay xam ni elle se pas bien moom naam feebaroon na daal euh, tey jii bi feebar bi amee ana yan kàddu ngeen mujjee wax waaw man nag euh, ci série boobu ma lay wax noonu ci lañ gëj a gisee parce que dama voyagé woon dama voyage woon mais à part ça boobu lañ ma di seen muy série jabaru góor gi mais bi may dem boo sentir naa ne dafa tawat parce que ci cérémonie bi noonu ci la ñu pare après ku nekk dem wax dëgg yàlla ci lañ gëj a gisee waaw ba ni ma déggaatee ni tey suñu borom jël na ko waaw. ñu dégg ni ki nga xamante ni moom moo di Sanekh jàppoon na ci li nga xamante ni moom moo di feebaram en tant que koo xamante ni si yéen a bokk milieu Samb euh, jàmbaar la yàlla xam na ni sax nit booy wax ci moom da wax rek te yàlla rek tax mais xam naa ni nit ku baax la. Mm-hmm. nit ku bëgg artiste comédien la nit ku bëgg mbokkam la moom itam ku bëgg jàppale doomu aadama la moom bu sañoon tey aar weesu na fii loolu nag euh, nit bu koy def merci rek moo ci war. Sanex Samb ku baax la. alors ak li nga xamante ni def na ko ngeen di ko rafet rafetlu yéen ñi nga xamante ni yéen ñëpp yéenay comédiens yi est-ce que Sanex rek war na moom kese jël engagement bu mel noonu yéen tamit fan ngeen nekkoon wala tax wala ba xam yéen yéen a ngi def li nga xamante ni Sanex mi ngi koy def moment bi. Euh,